borom bu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal kilifa diine yi ci réew yëpp di ko ñaanal sëñ Abdou Baraka xalifatu Cheikh Mamadou Fadal alaaji Cheikh naa Mbacke Fadil di roy xam ne lu coow li bëri bëri Pastef moom mi ngi continué nekk Pastef rek kenn mënu koo divertir kenn mënu koo dugal ci combat bu dul combat te président Ousmane Sonko lii la bëgg kon ñu ngi leen di jaajëfal militants yi ak seen partisans yi di jaajëfal militant bi nga xamante ni nag xamul kenn kenn xamu ko moom li ko ñor rek mooy président Ousmane Sonko dugg pare te militant yooyu ñu ëpp fuuf militant yi xam kon militant yooyu maa ngi leen sàkku ñu tàccu seen bopp bu baax a baax comme ni ko daala waxee rek li fi xew bëri na parce que Touba waroon def ay sorti mais dañ ne lu jot yomb ndax ginnaaw bi yàlla dogalee ñu nekk ay taalibe Sëñ Touba yàlla dafa ñoo natoo ñu nekk ay politiciens te yaakaar naa 99 pour cent ci ñi bokk Pastef ku leen waxoon bis dina ñëw ngeen def politique ñu la déedéet kon jàpp naa lépp dugal ci politique accidentellement la kon jàpp naa ne kon Cheikh Mouhamadul Mountakha bu joxee ndigal ne day tere politique ci dëkk ba fekkoon na ci waa Pastef Touba kon ñoom duñ murit yoo xam ne dañ leen digal ñu door a xam mais lépp loolu leen war a xam nañ ko avant ñu ko leen koy digal kon maa ngi ñaan waa Pastef Touba ñu tàccuwaat seen bopp di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha bu baax a baax a baax ndax li ko jàpp naa ne bu ñëwee yeesal ndigal yi nga xamante ne ay waajuram ñoo ko yeesaloon kon dañ ko ci sant di ko ci gërëm di ko xamal ne ñaanuñ yàlla nekk ci loo xamante ni moom dañu ci wekk ñu ci yett ba tax na pëste Touba mën ngaa waat ci yàlla ne amul permanence Touba boo ñëwee permanence Mbàkke nga koy fekk benn activité politique boo xamante ni mën naa jur accident ñu mën ko def ci dëkk bu amul contrairement suñu adversaire yi ñoom ñoo njëkk politique biir résidence Cheikhoul Khadim bi nekk Darou Marnane ku interroger histoire di nga ko fekk ci internet bi beneen bi ci toppaay ñeenti fane yu mujj ku dem mbaaru liwaawul xam nga xamante ni fa la sëñ Touba dugg xalwa muy Daaru Xudoos fa lañ defee seen meeting bu yi li tax bakkan yi loolu ba léegi rek léeguñ ko benn bi nga xamante ne bakkan tax nañu faatu barricade gi ñu barricade kër Ousmane Sonko di rot li tax bakkan ñu di rot mooy Macky Sall mi nga xamante ni ñëpp xam nañ lenn moo ko traîné rek mooy lu tey Ousmane Sonko bokk candidat 2024 loolu bokk na bakkan ñu kon jàpp naa loolu buñ ko réglé wul di réglé ay troisième mandat ay diw dina bokk diw du bokk loolu ay caaxaan la kon jàpp seen xel te xam ne lu dul jàmm jàmm ko gën Serigne Touba biñ ne ko ndax am na lu ndax am na lu gën jàmm dana gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën fañ jëm kon ñun ñëpp jàmm lañuy ñaan yàlla te mboolem ñi nekk Pastef amuñ ñaari nationalité benn nationalité lañ am kon bu réew mi di tàkk ñun ñoo ci ëppale mais mbir mi nekkatul la comme ni ko sëñ bi waxee léegi sëñ Abdou Khadir Ndiaye affaire képp koo xamante da ngay dund Sénégal Macky Sall li muy teg nit ñi nga nangu ko jàpp naa ne yow jaamal a gën ndax bu fi sunu maam yi doon dund lii muy teg nit ñi bu ñu la ko tegee dañu bañ ndax Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasuul bi muy jóge Mbacke Bari le 10 août 1895 bi mu egsee Louga tubaab bi escorté ko ci seen i gënu ak seen i magi Louga yi dañoo génn ne ko dañoo bëgg jàmmaarloo tubaab bi ñu rey ñu bañ dee tàkk mais duñ la yóbbu loolu histoire da koy nettali te ñëpp xam ne magi Louga yi boobu mënuñu woon jàmmaarloo jàpp nañ ne kii ñu teg ko lu yoon ñu paree pour jaay seen bakkan tubaab yi kon jàpp naa ne ñuy néewal doole nit sénégalais yi taxaw ci loolu lu yàgg la ci Sénégal du lu bees kon defuñ ko ngir Ousmane Sonko la sant defuñ ko ngir Ousmane dafa rafet bu dee rafet rafet yaakaar naa Mansour Faye ko dàq fop kon dañ koy def ngir Ousmane Sonko sénégalais la juddoo Sénégal yeroo Sénégal am ay ambition pour ndaa bëgg jiite réew mi Macky Sall ne ko doo ko fi defee loolu tax ñu ko jàpp naa li fi amoon 2021 ginnaaw 2021 dañ teg ab kombulo sénégalais yëpp joxe te boobu leerul leen asamaan bi fen yi leereen nañ kon jàpp naa ne le ñu taxawoon ñëpp takk rajo yi ne li amoon dootul amaat ñu rey 29 personnes jàpp naa ne buñ bëgg a yëkkatiwaat loolu tey jii la waaru gën a aay kon maa ngi wax patriote yi ñu gën a takku te xam ne dara changé wul Macky Sall lim def loolu la war a def yoon muy ko mbokk ci élection yi bokkul. leneen li nga xam ne nag duñ ko nangu jaral nañu jaayaat suñu bakkan mooy mu ne Ousmane Sonko du bokk ci élection yi loolu moom na leer nan ni ma ko waxee président Ousmane Sonko barki démb combat bi kenn mënu ci Touba te kenn du leen ci man yéen waa Pastef Touba dafa bëgg ngeen tàcc xam ne dugal ngeen seen bopp ci histoire ko dootu na boppam bu ëllëgé ci biir man dama naan Macky Sall xaw ban dëkk lay ak yowal xiyam ci nguuru Macky Sall mais wa Touba. loolu mom seen baat ci pat ndax 2012 gañewul Touba deuxième la fi jël. référendum 2016 yi moy li na ron indiwaat ay bakkan Sénégal Touba rek mo wëté non Touba rek. Touba rek ñoo comprendre Macky Sall fi mu jëm réew mu baaxul ñoo ko njëkk comprendre ci aduna bi. président Ousmane Sonko ni ay amee base politique Touba amu ko base politique Ziguinchor defe naa kii ko soir xëy na sama liste daal di fii jàll président Ousmane Sonko 109000 voix la am Touba 109000 voix te li ko jiitu 129000 te li ko jiitu mooy élection locale yi. candidat bi ñu àndaloon moo gagné conseil départemental bi jaay ko Macky Sall ñu ñëwaat liste daal di fi gagné waat ko kon jàpp naa ne fii moom mooy version électorale président Ousmane Sonko. te 2024 tamit dinañ ko ko wan benn bureau de vote boo xamante ne candidat dina fi am dara am bul président Ousmane Sonko kon ñun. defuñ suñ xel ay candidat A candidat B candidat C benn candidat lañ am mi ngi tudd président Ousmane Sonko 2024 ku ko bëgg a woteel boo eggee ci urne di nga ko fekk ab xamam te di ko woteel wa ilaa élection du am Sénégal loolu moom na leer nañ loolu moom na leer nañ loolu maslaa wuñ ci négocier wuñ ci waxtaanuñ ci waaw suñ candidature ajuwul ci kenn ci peuple Sénégal la aju asamaa yéen ndaw ñi kon maa ngi leen wax ne ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ay sahid lañ dañoo dee ci xare ñooñu moom bu leen kenn jooy fañ nekk tey a am na ci ñoo xam ne man ak ñoom ñu nekkoon garde à nga xamante ne ma kaay njëgënaayoo ci sëñ bi ndax yow waroo nekk man gënu ma ne kon ñoom Pastef moom don de soit pour le patriote boo demee kaso yi di ko fekk bi ma mujjee seeti Diop Taïf li ma njëkk wax lenn de ngeen def ma xam ne war ngeen président Ousmane Sonko mu ma xam ne yéen def ngeen lu ma kon yéen maa ngi leen di yóbbante yëpp ngeen xam ne ñi ne kaso yi nee na boo leen bàyyee président Ousmane Sonko Macky Sall dugal ko prison wala ngeen bàyyi président Ousmane Sonko Macky Sall faagagal candidature am war ngeen Ibrahima Fall mi ñu rey war ngeen ñi nek ci kasso yi war ngeen ñep te lolu yakana du len ko seetaan ñun wa Touba de buñ ko seetaan te lolu ma ngi jël témoignage peuple sénégalais bi di jël témoignage ñi fi tew ñep ñun wa Touba Macky Sall bëgg éliminer candidat Ousmane Sonko département Mbacké moom la njëkk jaar ci seen kaw door jaar ci kaw benen département fofu la wone fa la jëm discours bu ñuy layaam laawee amu fi lu ñu masla amu fi candidature bi dal buñ ko bëgg éliminer ay bakkan yu bëré bëré lay laaj bu fekké na jaral nako Macky Sall nak ñun jaral nañu lolu mom na leer nañ nañ nañ nañ ci télévision laa ko waxee ci ay caméra mos wuñ ci daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Pastef Touba nag Pastef Touba nag euh, ñi koy jéem a jaboli seeg yoonu murit pen perte la ndax jotaay bi rek wane na ko sëti Serigne Ndiaye ñu ngi jotaay bi sëti Serigne am sëti Jaxate ñu ngi jotaay bi waxuma ne ku xamul Touba ndax Touba gar yi dafa bëri lool Touba dafa bëri ay gan trop mais ku xam dëkk bi bu ma tudd tuddalee ñii di nga xam ne ñii ñooy dëkk bi kon Pastef Touba bu fekkoonte ne suñu candidature dañ koy diaboliser yoonu murid loolu benn perte la biram ñëw na ci historique bi ci lu bëree bëree bëree bëri kon du ma ci dellusiwaat di xamalaat Pastef bind nañ ab lettre Pastef national meeting di investir bi nga xamante ni moo war a fal Ousmane Sonko fii lañ ko war a lancé département Mbacké bu boobaa bu boobaa bu boobaa soxla nañ fi un million de personnes yoo xamante ni ñëw ci boulevard boulevard Ndoye bi mu fay le 10 février bi nga yàqoon na ko te loolu dara incha allahu rabbi dañ dajale un million de personnes ci boulevard Ndoye bi investir suñu candidature 2024 nga xam ne Macky Sall bu du ci mën dara incha allah rabbi moo xam préfet autorisé ko moo xam mu ñàkk ko autorisé moo xam kenn bañ koo gàllankoor far yu néew ko lancé bu xam ne li tax ñu war a xeex ak Macky Sall bëri na ñaari war naa tax ñu xeex ak moom bi ci nekk mooy na yi ñu teg waruñoo xaaraat ñu naan dañuy song président mm. ñu naan de maintenant war nañoo lancer dugal ay demande ci Sénégal yëpp pour Macky Sall bàyyi détenu politique ñu jàpp amu ci droit te fan xamante ni soxla nañ 100000 personnes nekk fi ñu bàyyi suñu détenu politique yi ndax li a doy waar mooy ñi jàpp ci Sénégal yëpp ñu ngi leen bàyyi ba des Mbàkke képp ku ñu jàpp teewoon balaa semaine bay jeex ñu bàyyi la képp ku ñu jàpp Casamance ci jour bi lañ lay bàyyi le 10 février ba léegi ñu jàpp ñi ci kaso bi te bàyyi wuñ leen loolu suñu ñàkk fayda moo tax kon à partir ñun dinañ génn ci mbedd yi wax ñu bàyyi suñu tuturi politique yi ndax defuñ dara bu fekkee am nañu war a jàpp muy woy yi nekk ci département Mbacké bi di boole nit ñu jàppale ñooñu lañ war a tëj kaso mais ñëpp di ñëpp xam ne yàggatul dinañ dugal demande autorisation mais li ñu gën a ñor mooy mitin di investir bi nga xam ne war nañ ko def ci département Mbacké di ci woo patriote Sénégal yëpp un million de personnes lañ ci bëgg pour investir président Ousmane Sonko ñu xamal Sénégal yëpp nekkuñ ci plan benn plan la am muy président Ousmane Sonko wasalaamaaleykum wa rahmatullah